wala nga ne ab dëkk la de Madiyana doomu Ibrahima moo ko tabax su ko defee nag ñu tuddee ko dëkk ba Madiyana moomu mooy maamu yonent yàlla Shuayb alayhi salaamu bu ko defee yàlla yónni bu ca dëkk boobu wala yàlla yónni yonent yàlla Shuayb bu ca kuréel googu Madiyana ibnu Ibrahima doomu Ibrahima la banaa tabax na baldatan ak dëkk fa sumiyat ñu tuddee ko bii ci dëkk ba dee awala nga ne madiyanu qabilatun kuréel la imma benn an mu nekk ismal madinati di turu dëkk aw ismal qabilati wala turu kuréel de sawaawun ñu wa yemoo arsala yónni na laahu alayhim ñoom si ñoom Shuayban Shuaybu ibnu ibnu madiyana doomi doomi madiyana de kon Shuaybu sëtab madiyana la yàlla yónni ko ci waa dëkk boobu wala waa kuréel googu qaala mu ne yaa qawmi ay yéen sama nit ubudu wétal leen jaamu Allah yàlla waxidu wétal leen ko maalakum ñeelu leen min ilaahin ci benn yàlla xayru ku moom de amu leen kenn ku leen war a jaamu lu ma yàlla ndax moom moo bind mooy wërsëgal mooy joxe mooy xañee mooy lore mooy jëriñee mooy dundal mooy rey kooku rek la ñu a jaamu de wala tanqusu bu leen wàññi almiqyaana natt ga wal misaana ak balaase de bu leen wàññi li ngeen di nattal nit ñi ak li ngeen leen di peeseel yàlla daf koy noon ci ay jula ñuy natt ka su ko defee ñu daan nax nit ñi rek bu ñuy jaay nit ñi natt lu dégg nga waaw loo xam ne nii nit ñi dañ cee lore du mat waaw def lu tuuti rek lu matul kilo ne leen kilo la naxa rek de suñuy jënd nag ñoom dañuy nattal dañuy natt ba mat sëkk seen kilo bu ñu jël moom dafay mat sëkk su ko defee nag mooy bu leen def loolu de nii naka man araakum dana ma gis leen bi xëyrin ci giw dégg nga waaye nii nag man a xaafu dana ma ragal aleykum ci yéen adaaba yawmin mbugalam bis muhitin bi aji xarak leen de daa woon a xaw ma ak nitam ilaa maa yeddoo jëm ci la dana woo ilee jëm ci moom al anbiyaaw yonent yi wa rasul yi ak ñañ yónni jëmeen mboolem seen wóolu na tawxidu moo di wéetal yàlla de wa ibaadatullahi ak jaamu yàlla tabaraka wa taala ka wana wax doo moom dong fa haza lii aslu diini mooy cosaanu diine wéetal yàlla ak jaamu ko wa naawam tere na leen amma kaanu ci lañ nekkoon it naaw loolu doon ko jël mën a ci wàññi wàññi fil mikiyaali ci natt ga wal misaani ak peese ga lañ daan nattal nit ñi di ko wàññi di ko jëriñoo te fekk xal doomu aadama yi la lañ daan peese di ko wàññi ngir nax nit ñi mu aaye leen ko de dégg nga na leen dama ragal ne bu ngeen continuer di wàññi xal nit ñi yàlla na leen mbugal de woy nii nag mën a xaafu dana ma ragal aleykum ci yéen azaaba yomin mbugalam bis muhitin baaji peeg bi kum ci yéen yóori kukum dana leen xalak ba dugg na ci képp kuy noggatu doomu aadama rek di jël seen xaral ak xanam googu mën a defee rek dégg nga ragalal ne mbugalam yàlla dana ñëw la rek xalak la rek laa wax ñi aw foo matal leen almiki yàlla natt ga wal misaan ak balaase de atimuhuma na ngeen leen matal bi xësti ci mandu binaadiri ci mandu wala tabxasu bu leen wàññil annaasi nit ñi asiyaawam seen i laa tanqusuum bu leen wàññil min aqim seen àq shay'an dara de bu leen wàññil nit ñi dara wala tansaw bu leen yàq fi di si suuf si mufsidiina mu ngeen war yàq bil qatli ci rey wa xeyri ak lu dul loolu te mooy jël xalali jàmbur yi ci naxante kaanoo nekkoon nañ ñoom nitu Shuayb yi isak taaloo buñ nattee min annaasi ci nit ñi ataw andi nañ bi mikyaalin ci nattukaay kabirin bu mag li yaxuso pour ñu jël kasiran lu bari mi ne dinaa ci fa nit ñi ci misaal bu fekkee ñoom seen bopp lañuy nattal dañuy jënd dugub wala ceeb wala lu mu mën doon ci nit ñi dañuy indi nattukaay boobu kilo ne leen kilo la rek laa wax de ngir nax nit ñi jël seen xalal wisa kaaroo nem peese wala natt nañ li naa si ñeel nit ñi ataw andi nañ bi mekk ci nattukaay saxee bu ndaw lépp xasuwum pour ñu wàññi leen seen xalal de bu fekkee nag nit ñi ñooy jënd ñoom ñooy jaay ceeb wala dugub lu mën a doon dañuy wàññi andi nattukaay bu ndaw natt ko fa ne rek kilo la fekk matu kilo si misaal wa kazaalika nekk noonu lañ doon def fi misaani ci balaasi de wa haazaa lii jeng la wa zulmun ak ak tooñ wanaa am tere na leen an ci loolu nabiyu laa yonentu yàlla ba Shuaybun Shuaybu annahum na ko ñoom in faalu lim def nañ daaliku loolu yaxaafu dana ragal alim seen kaw azaaban mbugal ba léegi dugg na ci képp ku kuy nax nit ñi ci jëflanteeg ñoom ci wàllu xalal di lekk seen xalal ci lu dul yaa ngi def lu xaram de moo xam président la moo xam ministère la moo xam commerçant la moo xam ku mu mën a doon rek booy nax nit ñi jël seen alal te wóor na ne li ngay def du dëgg ragalal mbugalam yàlla wàcc sa kaw rek xanaa azaabu mbugal min azaba muy jugee si azaba di firi tere na isa mën a andam tere na wa minu ci lañ jëlee almaaw ndox alxas bu de ndox mu neex dafay tere mar kon matière mbugal ak tere lay firi aminu ci la bokk alanga bu mbugal lia noo ndax moom yem dafay tere rek suma bàkkaar de mbugal dafay tee def bàkkaar waazowum waar na leen andoom na ñoom inis tamaroo dem continué nañ ala naq seen mikiyaar yi ci wàññi nattukaay misaan ak balaas ya ana laa naka yàlla yuxiitukum dana mu peg leen bi adaabin ci mbugal meen lii bu jugee fa moom de baqiyatullaahi ndesetu yàlla lan mooy ndesetu yàlla mooy su ngeen jëflanteeg nit ñi ci jëflante bu màndu la ci des muy seen wërsëg loolu la tuddee ndesetu yàlla de ngir màggal ko ak barka ko de wërsëg bi nga xam ne ni moom ngeen xam bu ngeen jëflante nit ñi ci lu màndu kooku moo gën ñeel leen risqoo wërsëg yàlla albaaxi gaa des la kum ñeel leen baada ifaayil kaydi gannaaw matal natt ga wala was nag peese ga xeeru moo gën lakum ñeel leen in kuntum na nekk ngeen moom mi ne di gëm baqiyatu laay kooku idaafatu tashrifin laa laaf ak teral la wërsëg wi nga xam ci gannaaw boo jëflanteeg nañu ci dëgg bénéfice ba nga ca am kooku daf ko askane yàlla ne mooy ndesetu yàlla loolu mooy li gën ñeel leen de isa tara ko buñ bàyyee naqsal mikyaali wàññi balaas ya wàññi peese euh, balaas euh, nattukaay wal misaan ak balaas ya wa taraku ñu bàyyi a tatfifa wàññi xalul nit ña wa ak ribaaya ak ndollal ya alati nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yàqusuuna di ko jël mi maa ci nga xam ne lee si nekkul di leen ñeel mboolem naxante yiñ naan jëlee xal li yi rek di ko lekk ci lu dëgg buñ ko bàyyee fële si li nga xam ne yëpp xaa dana des bàyyi diim seen loxo wóolul alxalaalu mooy lu dagan waxoo moom alladi mooy li nga xam ne samaaw tuddee na ko allahu yàlla baqeetu laay desutu yàlla desutu yàlla mooy yàlla ju dagan ja mooy di des sa loxo de ko moom dañ ko àkk ne yàlla ngir teral ko idaafatu tasrifin laafak teral na de kon maa baqee la des na risqi ci wasagab yàlla kooku idaafatu tasrifin laafak teral la comme ni ñu waxee ka naqati laay comme gërëm ak yàlla waaye yàlla warul de nga baytu laay kër yàlla wala néeg yàlla waaye yàlla toogut ci benn néeg nga li des nag ci sa alal ju dagan ji gannaaw boo bàyyee yoo xaraam yi kooku yàlla daf ko askane boppam de alal jooju alal ju yàlla fonk la alal ju yàlla foral la maa yab xaala des nit xilaay ci wërsëgab yàlla lëkkum ñeel leen xeyrun loolu moo gën lëkkum ñeel leen min haada alladi ci li nga xam ne taaxusuno yéen koy jël min amwaali naasi ci àllu nit ñi zulman ci tooñ de li anna zulma ndax tooñ maaluhu delluwaayam ilal xalaaki mooy jëm ci alkande faqat dongu de tooñ daa alkande rek ci la jëmee boromam waaye ay wërsëg yi nga xam ne wërsëg wu leew moom kooku moom xewal la ñeel de wërsëg la wala yàlla jox alal ju daganut comme ñam wuñ def tooke bu neexee it ci jamono ba nga koy jariñoo bis dana ñëw moo ndil la musiba woo xam ne ni soo yëgoon doo ko jariñoo ñoom bu ñu tookee bu neexee ci jamono ba nga koy lekk bis dina ñëw moon di la feebar woo xam ne soo yëgoon mukk loo ko jëriñoo de fay na laa naka yàlla tabaaraka bari wa taala kawe na yaqbal dana nangu an yastaqima mu jub nguur fi duniyaa ci maal kufri ànd weddi yàlla daa nal kufra ndax safara faqat dong wala yaqbal waaye azulmu azulma tooñ wala caagin jeng de yàlla ci mbaaxam mën naa baaxal nguur dile borom xéeféer la dile ku ko jiite xéeféer la waaye ci kaw mu mandu de mandu mooy jéem a xemale doomu aadama yi jéem a fexe ba kenn ku nekk rek jot xàqam ku mandu ci jëflante rek jege lislaam te noo gën a jege lislaam sa nguur gën a baax moo tax nit mën naa nekk xéeféer waaye nguuram baax ndax daf cee boole mandu de waaye tooñ moom yàlla du ko nangu mukk moo tax kuy tooñ sax sa mbir du baax ci àddina de dégg nga wala yaqbal du nangu ak dul ma tooñ wala jabara du jaagin jàng haada lii yantaqimu dana fayu min ahli si ñuy tooñ fi dunya ci àddina qabla alaxirati njëkk alaxira de tooñ kat yàlla ci àddina lay fayekoo ci moom balaa alaxira moo tax tooñ kat bu jiitee nguur nguur ga du baax du jub mukk du am jàmm nit ñi duñ ko bëgg musiba rek ci lay dëkk ak xaste faliasa lii moo tax tajidu da gis kaafiran xéeféer isa adala bu mandoo yastaqimu mu jubloo ñeel ko almun ko nguur de xéeféer su mandoo nguuram dafay sax yàlla daf koy dimbale dégg nga askanam dañuy nekk ci jàmm rek laa wax de waaw ndax mandu gi mando moo waral nguur ga di sax askan wi nekk ci jàmm mbir mi di di neex rek di continuer kooku mandu gi moo ko waral rek laa wax de dégg nga waaye su fekkee mandu nag mbir mi du mën a baax ba mukk rek laa wax kon dégg nga nguur mënul baax mukk ci kaw tooñ waaye mën naa baax nag ci kaw kéeféer de ndax yéeféer bi mbugalam alaaxira rek la mooy sawara waaye bu maandoo ci àddina rek moom yàlla dana jubal nguuram rek laa wax de dégg nga faliagar yi moo tax tajur da nga fekk kaafira ne féer isa bu maandoo yastaqimu dana jub lawu ñel ko almulku nguur li an ndax am na mu ne leen xaar bi ci mbugal maa yegg fii la ko doy boobu moom anaaru mooy safara de xéeféer am na mbugal mu ko doy mbugal moomu moo safara bu maandoo nag àddina mën naa baax de wisa jaara dem jeng na moom xéeféer xalak mu alku amaa bu jengee moom dafay alku de nguuram du mën a baax rawatina julit bu julit julit ak xéeféer yëpp daal ku jeng sa nguur du baax woma anaɗen man be hafisin maji wattu alaykum ciyende alkiɓin maji foglu ujasikum danama fayiren be amalikum sen jeefi yonante allah sohaybune duman maale ni foglu di qolla gen def mo fay ko bu baaxe bu bone mo mbugal len loolu man warul ma rek la wax de qaalo ñine ko ya sohaybu eyo sohaybu istisan ngir ñawal ko asalawaatu ko ndax sa julli taamuru ko daf lay digal bi taklifi ko ci togg la an natru ko ñi bàyyi maa yaabudu dana ko jaama baaw naa suñuy bàyyi mi ñu def ci am waal naa suñu alal maa na saaw lu ñu soob yonent yàlla sooy bu ku mënoon a julli la ñu ne ko manax sa julli yu lem lay digal mooy ñu bàyyi la doon suñu bàyyi di jaamu i xiram yi wala boog ñu def suñu alal yi lu ñu neex alal ji ñoo ko moom lu ñu neex lañ ci def ndax yow sa julli gi moo ñu tere loolu de haasa yi amrun mbir la baatirun bu yàqu laa yi doon du woote ilay jëm si moom daayin aji woote bi xëyrin ci lu baax de bu fekkee ci lu baax ngay woote lii moom du baax mooy ñu bàyyi lii suñ bàyyi doon jaamu mu di xërëm yi suñu alal ji amatuñ dura def ci lu ñu neex ndax loolu nga ñuy digal kaana nekkoon na moom yonent yàlla sohibu kasira salawaati di ku bëri julli falamma araadu bañ bëggee alistisa yeeji bii ci moom mooy ñaawal ko wax nañ la woo ñeel ko noonu la àll salawaatika amaana julli yi yellati mooy li nga xam ne taamur ko ko dana digal bi misli haada ci lu mel nii an natru ko moo ñu bàyyi ma yaabudu lu doon jaam abaaw naa suñu bàyyi waaw wal naa suñu waaw waal naa suñu alal yi lanaa ñeel nañu nata sarafa ñu soppandiku fiyaa ci moom kama nuhibbu comme nañ ko bëggee suñu alal yi ñoo ko moom am nañ dura def ci lu ñu neex ante yow salawaatu ko sa julli gi taamuru ko dalay digal bi hada ci lii de ñu bañ a def suñu alal yi lu ñu neex wala ñu jaamu këram yi <coughs> suñu bàyyi loolu lañ doon jaamu naka naka yow la ante yow la xalimu yaa aji doxe rashidu yaa aji dese alxalimu mooy alxamaq ku dofe arrachidu mooy asafi ku dese fekk alxalimu ci dëgg-dëgg mooy ku lewet alxamaq euh, mooy arrachidu mooy ku ñor waaye lañ bëgg a wax rek mooy dañ ko bëgg a jàllar bi arab dañ naan def buñ la bëggee xas ne yow yaa am xel fekk yaa gàttal xel lañ ci na mu dee loolu lañ ko wax fii xel la boo jàllar bi nañ loo ñeen ko alxaqiqatu dëgg-dëgg araadu bëgg nañ an si foofu ñu melal ko bi anoone moom xaawin aji bew la wa safiwun aji dese wasafuhu ñu melal ko daanoo ne moom xaaqilun aji xelu la wa rashidun aji ñor la de aji jub la aw wala dañoo wax innaka naka yow la ante wala xalimu yaa aji xelu yaa alaqilu yaay ko am xel rashidu yaa aji jub fii zamika ci li nga foog de yow daal da ngaa ne da am xel danga jub mën naam am ñu ne mucc loolu mën naa am ñu mucc ak a xaste yow yaay ki réer yaay ki dese ndax boo bëggee daal suñu xalal yi duñ ci neex suñ xërëm yi jaamu te suñ bàyyi doon ko jaamu ñu bakko kon yow yaay ku dof de xaaral ci la wax moom yonent yàlla Shuaybu ne yaa qawmi ee yéen sama a araaytum xibaar leen ma in kuntum nekk na ala baynatin ci lay ala baynatin ci mbir mu leer min rabbi bu jógee sama borom wa razaqani mu wërsëgal ma minu ci moom risqan wërsëg xasanan bu aji dagan xalaalan bu aji dagan afa ashubu ndax dama cay ñax bil xaraami ci lu xaraam minal baxsi ci wàññi alali jàmbur yi wa tatfiifi ak naxante ci peese dëgg la alal ji yéen a ko moom waaye man de du ma leen topp du ma leen topp mukk ci ni ngeen di jëflante ci wàllu xalal mu dig riba de yéen moom seen xalal waaye amu leen dura di jël alali jàmbur sa xalal bu dee mën nga ci def lu la neexit taxul mukk nga mën a jël alali jàmbur de. moom xaayewul leen ci ñi jëfandikoo seen xalal ya waaye lam leen xaaye mooy noggatu ga ñu noggatu néew di doole ya di leen na tallu baaxut di wàññi seen xalal de mu ne man nag su yàlla xamalee def ma yonantu jox ma lay wu hóor li ma nekk moo di dëgg jox ma wërsëg wu dagan ma nax da ngeen a bëgg wërsëg woowu ma rax ci lu xaraam di noggatu nit ñii di jël seen xalal ci peese yi du ma def loolu de wa maa uridu du ma bëgg anu xaalifakum ma wut ak yéen waasafu ma daal di dem ilaa maa jëm si ne xam ne anhaakum dana ma tere li naanu ci moom faartaki boobu ma toggoo ko de man nag du ma leen digal dara ba pare di ko def digal leen wut ak yéen xaaye leen dara ba pare jaral bi ko di def la ma leen xaaye du ko def lépp lu ma leen xaaye rek maa koy njëkk ba te xaaye naa leen jël xal li jàmbur de peese yu baaxul yi daal xaaye naa leen ko in ureedu bëgguma illal islaa lu defar la kum bi adili ci maanaam ma sataatu sama kéemtulaay kattan li ma bëgg daal mooy xéwanal seen waa waaw seen mbir waaw ci mandu de wama tawfiqi de sama kattan ci loolu qudrati de sama kattan ala zalika ci loolu waxee ak lu loolu mene taat ci topp yàlla illa billahi lu may dëgërloo yàlla yàlla rek laa ba mën a am kattanu defar seen mbir ak mboolem lu ma bëgg rek ci yàlla laay dëgëroo ba mën koo defar de alay ci yàlla كوني بدنا ما دلوا إلي جم شال دم أرجو بدنا ما دلوا جم شال شال لا هو كيلو مملا باي سمبير تشي مملا دلوا ويا قوم إيرين سمونت لا يجري منكم جل بملن دنغ هن لا يكسي بنكم بملن فقلو شقاقي وتك من خلافي وتك من أن يسيبكم بمجر لين مثل ما أصابكم لجتن قوم نوح نت نوح أو قوم هود ولا نت هود أو قوم صالح ولا نت laa yaxmilannakum bu mu leen xen xubbu bëgg gi ngeen bëgg li mu xaalifati ci wuteeg man an yaqaa mu tabbi fiikum ci yéen alxalaak alkaane de kama waqaa comme nu mu tabbee fi awlaay ci gaañi de nitu noox yi alkoon nañ nitu hud yi alkoon nañ nitu saalih yi alkoon nañ nañ ko jàngee bëgg wuteeg man nag bu mu tax mukk ngeen def la ma leen xaaye ba mu bugalam yàlla wàcc seen kaw rek wa ma qawmu luutin déet nitu luut yi mooy manaaziluhum seen kër ya wa zamanu halaakim ak jamonoog seen halkande bi maa ngi leen di sori min kum ci yéen nit luut yi bañ a halkoog léegi yàggut te seen kër yaa ngi nii jege leen lool xam ngeen la fa xewoon kon nag fexe leen ba bu leen wuteeg man de bu ngeen wuteeg man man ngeen hal ko nekkul bi maa ngi leen di sori min kum ci yéen de fantabiru na ngeen ca xalam mooy na geen ca xalaatee de <clears throat> wastaxfiru na ngeen jégalu rabbakum borom seen su ma tuubu topp ngeen tuubi lay jëm ci moom inna rabbi nag sama borom. rahimun aji yërëm la moom bil ci way gëm ya wadudun aji sopp la muhibbun aji sopp la la moom leen de yàlla na ngeen ko jéggalu te ngeen dellu ci moom ci topp ko te ngeen xam ne yàlla moomu ku yërëm jullit ñi la ku leen sopp la yow laa wudduhu bu doon sopp gim sopp jaami la mastamara du continuer risque wërsëg wal baqaaw ak des des ci àddina ala ma yartakibuna naan rek lañuy ñuy toggoo meneen maas yi ci moo yàlla de bu nekkutoon ak yàlla bëgg na jaam yi du leen fi ba di leen jox wërsëg te saa su nekk ñi di ko mooy te teewul mu ngi leen wërsëgal ba leen fa may leen jàmm kooku cofeelam ci jàmm yàlla yi moo ko waral de kon yàlla mu leen bëggee noonu jéggulu leen ko te ngeen dellu ci moom ndax dellu ci moom mooy dellu ci sa jàmm rek de doomu adama bu nekk rek buy jëflante yow am na intérêt bu mu ci am ba mu des yàlla moom la muy jëflante ak yow amul ci benn intérêt yow rek lay jëriñ jur wi nga xam ne daf lay yar di la defal lu nekk bëgg na nga màgg di doom ju baax mën a taxaw palaasam loolu intérêt la de sëriñ bi nga xam ne soxlawul ci yow dara sax daf lay yar rek ngir yàlla bëgg na ci yow ngërmaan ak yàlla te dara gënul foor ngërmaan ak yàlla kooku intérêt la amul lenn lu kenn kuy jëflante ak yow rek lu muy am na ci njëriñ waaye yàlla moom. la muy jëf ak yow moom jëriñut ko dara yow rek la bëgg a jëriñ de kon yàlla mu leen soppee noonu te ngeen ci moom rek laa wax de moo gën ngeen wéedu ci keneen koo xam ni cofeel gi mu am ci yéen jégewut mukk cofeel ak yàlla gi wala sax muy noon noonu xaaloo wax nañ ne yaa Shuaybu e yow bu maa naf xaw ñun dégguñ kasiran lu bari mi ma taqulu ci li ngay wax li ngay wax naan jéggalu leen yàlla ak tuub leen ak yàlla bëgg na leen ak yu ñu mooy lan nitu luut yeeg alkoog nooog yooyu daal xamuñ lan la xamuñ lu bëri lu ngay wax de woy naa naka ñun sax lan naraaka danañ la gis daañu fan ngaa ji torox fii naa suñ biir zalilan mooy aji torox torox de te foog ne sax am nga daraja yow ku ñàkk solo nga si biir amoo benn daraja ku torox nga wasafoo melal nañ ko bi an naquloo na seen xole ak laa taf xoo du dégg cheen dara mimma yaqulu ci la muy wax li aadami mu baalaati ngir ñàkk seen faale bii ci moom faale wuñu yonent yàlla Suhaybu moo tax toppatoo wuñ waxam wa annoom nako ñoom laa yaxtabiruuna konte wuñ ko azizan muy ku tedd fa yaxtabiruuna ba ñuy konte kalaam moo waxam de ñu ne ko Suhaybu ñun mënuñ laa dégg mënuñoo jëriñoo sa wax de ndax ñun wuñ la jàppe wuñ la ku tedd nit ku doye di lañ la jàppee kon nag kenn du déglu li ngay wax waxi ku tedd lañ mën a déglu jëfandikoo ko waaye ku mel ni yow tekki woo dara kooku woo xam ne du tekki dara rek laa wax de ñu ko wala laa rafatu ko bu woon sa giir asiratu ko sa giir la rajam naa ko kon ñu jëm la bili jaarati ci xeer wala rajam naa ko kon ñu saaga la ma anta déet yow bien ji nga ji teddaale naa suñ kaw de bu du woon sa mbokk yi nga xam ne am nañ xalal am nañ daraja koroon ñu jël ay xeer jëm la ba nga dee wala nga ne dañoo bëgg wax ne bu du woon ak xalal ko ñu saagara ba nga xasaw ndax yow amoo benn daraja teddoo fooroo de amoo dara loolu lañ tontu yonentu yàlla Suhaybu ndax yonent yi ñaareel yàlla def loolu leen def ñu ñàkk te doomi aadama yi ñoom xamuñ lu may ko am xalal àdduna de wa maa anta de yow azizin ngaa tedd karimin ngaa ji tedd alayna ñun de abnaaw dunya doomi aadama yi àddina yi alazamatu foor indoom fa ñoom bil maali ci alal jaay ak daraja doomi àddina yi ñoom xamuñ lu foor la foor ñoom daal mooy alal ak daraja wa ahlu diini ñooñ diine al lañ konte indoom fa ñoom alal mu xam-xam ci moom waaye ñi jàpp ci diine moom ñoom lañ xam mooy xam-xam bu borom jëfee loolu daal mooy teraanga ci ñoom fa man kaana ku nekk aaliman borom xam-xam mi amilan daal ji jëfee bian mi ci xam-xamam foofu moom aljalilu mooy ku màgg xendana xoqalaay faña xelu ñu de ñaam xel ñëpp ka jàppee ku màgg mooy ko am xam-xam di ko jëfee wayen kaane dina nekk na faqiran di ko ñàkk wayen kaane nekk na lay sa nekkul lawo ñeen ko jaawun daraja xenda naa si fa nit ñi de même bu fekkee dafa ñàkk nit ñi faale wuñ ko amul benn daraja borom xel yi moom la def ku màgg mooy boroom xam-xam buy jëfee xam-xam loolu mooy ñu jàpp ci diine te xam yàlla bi ak si ab naay dunya wuteeg doomi àddina yi kullu mën a indoo képp koo xam ne nekk na fa moom riyaasatul an njiit mu di président wala ministre wala muy waaw chef de quartier wala lu mu mën doon daal wala muy mu jiite maire ak yooyu ñoom daal kooku mu am daraja fa ñoom kooku lañ fonk wajaaw nag ko am daraja wa am ak ko am alal yan tabiroon danañ ko jàppee jëriñ muy ku màgg doomi aadama yi ku yàlla fal ngay njiit wala mu jox la daraja wala mu jox la xalal ñoom jàpp nañ ne yaay ku màgg ka yaay ku for ka wen kaane nekk na lay sa nekku ren doo la nekk na nekku ren doo fa waajooju en mun xam-xam wala baatu mu caagan jaamu yàlla boo amee xalal daal wala daraja wala ngay njiit bu la neexee sax nekkal ku réer benn xam-xam bu la neexee nekkal mooy kat yàlla jaamu yàlla waaye yaay ku màgg ko ci doomi àddina yi de way lay ci loolu yusiru lay ji ñu xadisu xadis ba ne inna laa naka yàlla moom laa yansuru du xool ilaa suwarikum seen melo yi da ngeen a xeesam da ngeen a ñuul da ngeen a njoolam da ngeen a gàtt da ngeen a rafatam da ngeen a kooku intéressé wul yàlla wa amwaalikum xoolu seen xalal yi xalal ji bëri na wala tuuti na waa kooku intéressé wul yàlla de walakin waaye nag yanzuru dana xool ilaa qulubikum seen xol yi yàlla gi nekk ci xol yi lay xool wa amaalikum ak seen i ak jëf yi ngeen di jëf loolu yàlla compté dégg nga ak ñoom yàlla yi loolu lañ compté de xëy su ba nga xamee ne ñoom nag moom yul basaayir dañoo gumba ay bët nazaru xool nañ ilaa nabi ilaa jëm si yonent yàlla ba Shuaybu annoo ne moom fun ku lott la xaqiirun ku xeebu la walakin raxtoo waaye giiram ga mu di mbokkam ya alladina ñi nga xam ne indoom nekk na fa ñoom alam waalo alal yi hum ñoom al aizaaw ñu tedd ñi waaw la aizatu raxti yi bur woon a tedd mbokkam ya indoom fa ñoom laqataloo ko ñu rey ko bi hijaarati ci xeer de ay gumba lañ ndax seen i bëti xol gisut moo tax ku yem ni yonent yàlla Suwayb bu yàlla yónni ko teral ko ci biiri <clears throat> mbokkam yëpp def ko mu yonent yàlla ñu ne ku lottu ku xeebu yi nga xam ne yàlla jox na leen alal ñu ne ñooñ ñooy ñu tedd ñi mu ne ko ñu ne ko buru woon a teddaag ak say mbokk koroon ñu jam la ba nga dee wala ñu saaga la ba nga xasaw xaala mu ne yaa qawmi ee nit ñi araxti yi araxti yee ndax sama giir gi ah du ñoo gën a tedd aleykum ci yéen mene laay ci yàlla de ndax sama mbokk yi ngeen gën a ragal ci yàlla rayu leen ma ngir ragal yàlla léegi nag ngeen da ngeen may ngir ragal samay mbokk de bu ngeen demee ba ba bañ maa rey ne yàlla tax ndax yàlla ko xayee ndax yàlla moom moo jën a ragal de moo jën a bàyyi ngir moom waaye da ngeen da ngeen maa bañ a rey ngir samay mbokk ndax samay mbokk ñoo gën a tedd yàlla fa yéende fatatrukuna ba ngeen bàyyi xat li rey ma jaaj lii ngir samay mbokk wala tax fusuuni wattu leen ma lillaahi ngir yàlla de du tax wattu leen ma ngir yàlla di ma wattu ngir samay mbokk wa takatumu jàpp ngeen yàlla ay allah ay allah waraakum seen gannaaw zehriyen duñu luñ sànni ca gannaaw man buusan di luñ sànni xalfa zuhurikum seen gannaaw ya laa turaaqibuuna du ngeen ko fuglu de yàlla moom fële ngeen ko teg du ngeen bàyyi dara ngir moom du ngeen def dara ngir moom kalaama na leen yàlla nag inna rabbi naka sama borom muhitun aji peg la muy bima tàmbaloona ci la ngeen def de inna rabbi naka sama borom muhitun aji peg la muy man ci xam-xam bima tàmbaloona ci la ngeen def fayu jaazikum te dana leen fay lépp lu ngeen nag xam ne yàlla xam na ko te dana leen ko fay de wa yaa qawmi ay eh yéen sama nit i'malu jëf leen ala makaanatikum seen mbir ay xaalatikum comme seen mbir inni man aamilu aji jëf la ala xaalati sama mbir de jëf leen ngeen ko yëgee man dana ma jëf ni ma ko gisee sawfa ta'lamuuna xal si ngeen a xam man kaa xam ne yaati dana ko dikkal azaabun mbugal yuxzi boobu dana ko gàcceel de wa man ak kaa xanoo moom kaasibun aji nar la aji fen la ana man la am antum wala bis dana ñëw ngeen xam kan la yàlla di mbugal ak kan mooy nar war taqi boobu fuglu leen intaziro mu leen aqibata amrikum mu jëg seen mbir inni nekk man raqibun aji fuglu laa maakum ànd ak yéen toog leen rek di xaar seen mbir manit maa ngi xaar de ay muntaziru maa ngi xaar maakum ànd ak yéen de wala maa jaabam dikkee amruna suñu digle bi xilaakim ci xarak leen na jeenaa musal nañ Shuayb bon Shuayb ba nga demee ba yàlla xam ne ne nit yonent yàlla soo buy duñ gëm muñal na leen waxtu yàgg gëmuñ yàlla ne ba mu bëggoon mu ñëwee nag ñu musol soin bu re wala ji nag ñi nga xam ne amunoo gëm nañu maa ànd ak moom bi rahmatin ci yërmande mi naa si ñun ñi gëm ànd ak moom yàlla musal leen ci yërmandeem waa xasal mu jàpp alladina ñi nga xam ne zalamu tooñ nañ bokkaale nañ yàlla sayaatu xàccug jibril ba saa yuuxu na biim si ñoom jibril rek ñu daal di de ñoom ñëpp faas boobu ñu xëy jaasi mina mbir mu ñu way boof fi diyaarim seen kër ya baari ki na ñu goor ala rukk bi ca xóom ya mayiti na di way dee seen xóom ya ñu daanu ko si suuf dal di dee de ci benn xaacu muy xaacub jibril kan lam yax naw mel ni mos ñoo sax ka annum daf mel ni ñoom lam yax naw mos ñoo sax ay yuqiima mos ñoo sax fiaa ci dëkk yooyu de xalaku xalku nañ dee na ñoom ñëpp xataa saaro bañ mujj xabaan di pënd man suuram bu ñu wisaare kaan noom bu mel ni ñoom nag ñu xiimoo saxuñ fii mu seen kër yi xattul mukk mujj nañ tasaaroo dee ba boo demee ci dëkk ya dafay mel ni mosuñ foonu dëkk a ataa yëgal bon dem sori gi yërmande yàlla li ma dee na ñeel na ñooñ ma dee na kama bàyyi dat comme num sore yërmande yàlla samuuda samuude xalaku ñun ñëpp xalaku nañ dee boo xoolee yonent yu bari seeni xeet ci alkaane lañ mujj ndax yonent yi danañ woote ba sonn boole ci nag di leen ñaawal ak wax ju ñàkk teggin ak jëf ju bon juñ leen di def loolu rek lañ jëf laan teg yonent yi ba alkaan ak yàlla mujj ñëw de waaw wala qad arsalnaa yónni nañu nag Moussa Moussa bi ayaatinaa suñuy kawtéef wa sultaanin ak ak lay mubiinin baa ji bér bu leer burhaanin lay bayinin baa ji bér zaahirin baa ji feeñ ilaa firawna jëm ci firawna wa mali ak ak nitam ya fa taboo ñu topp amra firawna mbiru firawna déet mbitam firaw na bi rachidin daa ji jub saridin nekkul lu jub de yàlla wen ni nag ci firaw na jox ko juróom-ñeenti kawteef yi nga xam ne jàngoon nañ ko jox ko lay wu leer naññi wuy wane ne ko yónni waaye niti firaw ya bañ nañ lu ma ne mbiru firaw na la ñuy topp ndax mooy mbiri àddina ñu topp mbiru firaw na musa Moussa de te mbiram firaw na ma jubut dégg nga nitu yi ñoom xamuñ lu lu jege àddina loolu rek la ñuy topp yaqdumu dana jiital ay yataqaddamu dana am dana jiitu xaw ma woon nitam yawmal ka rek bis penc fayet baawoon ñu topp ko de kama taboo comme niñ ko toppee fi duniyaa ci àddina yàlla nee na ni ngeen toppee Firawna ci àddina noonu la leen jiitalee yawmal qiyaamati ngeen topp ko fawradahum mu dugal leen a mu dugal leen annaara safara de yawmal qiyaamati Firawna jiitu mbooloo ma topp ko ñay dox di dox ba dugg safara noonu la yàlla di jëflante ñoom fay leen ngir topp gi nga ko toppoon ci àdduna te mbiram jubut daal bàyyi yonent yàlla Moussa wa bii sa bon na alwirdu rotuwaay ba almawrudu ba da bañ rodde safara sañeen dugg mooy lu bon <coughs> woo bon tofal nañ leen fi haaji dunia ci biir àdduna laanatan ak rëbbu wa yawmal qiyaamati bis penci dañ tofal nañ leen laanatan ak rëbbu de bii sa bon na arif du ndimbal la alaamu ndimbal la almarfudu bañ leen dimbalee de arif doom te mooy seen ak kontu rek kontu gañ leen kontu mooy kontu gu bon mooy yàlla rëbb leen ci àdduna xarak leen boole leen ak seen ak njiit mu di firawna labal leen ci géej ga bu yomal xiyaamati yàlla rëbb leen sori leen yërmandeem dugal leen safara loolu de mooy leneen leneen firawna dimbalee de loolu mooy njëriñ lañ xam ci topp firawna topp ku bon loolu rek nga cee jëlee zaalika loolu ñu leen bàyyil xuraa ngi bokk ci xibaaru dëkk naqsu danañ ko nettali aleyka ci yow yaa Muhammad yow Muhammad de mina am na si dëkk yooyu alqura dëkk yooyu qaayamun aji taxaw xalakaal ku ne ahloo waa dëkk ba duunoo walis dëkk ba wa na si dëkk yooyu xasidun luñ xalak ba mel ni luñ góob xalakaal ku ne bi ahli ànd ak waa dëkk ba fala asra di rek jeexit di ko ñeel ka zarin comme gàncax almaxsuudi bañ góob bil manaajili ci ay ngóobaan de na yoo yonent bi sallallahu alayhi lii ñu lay nettali yëpp mooy xibaar yi xewoon ci dëkk yi paase woon xeet yi jiitu woon seen i dëkk li fa xewoon yàlla yoonu yonantu xemuñ ci becc nga yonantu bi ak ñaawal ko ak xeeb ko ñu weddi rek boole boole boole ci nag <clears throat> ñàkk kersa ak ñàkk teggin gu sëkk yàlla mu ne yàlla ne dëkk yooyu am na ci yoo xam ne seeni borom xalku nañ waaye dëkk yaa fa de am na ci yoo xam ni nag dëkk ba ci boppam mu xaaral alkoale boo demee doo fekk sax lu niroog dëkk yàlla xaaral na dëkk ba xalagaale ñoom dëkk ba de au moins faram naa am tooñuñ leen ci xalag gañ leen xalag bi xëy na dañ biñ ci dul bakkaar yàlla leen di leen xalag te defuñ dara ah kay dañoo def bakkaar moo yàlla xalag leen de walakin waaye nag zalamu tooñ nañ am fusum bopp seen bi shirki ci bokkaar ak ñu bokkaar yàlla de fu ma wax nag fa ma ax na jëriñut dafa défendre daanum ci ñoom aliatum seen yàlla ya allati yi nga xam ne doona ñu ngi koy jaamu yam bu doona ñu ngi koy jaamu min duni laay walis yàlla de min seen ci dara yàlla yi ñu doon jaamu bàyyi yàlla jëriñu leen dara ki rek ba ñaal ko lamma jaa ba mu dikkee amul rabbika mbugalam sa borom de azaabuhu mooy mbugalam yàlla ba mbugalam yàlla ñëwee yàlla yi ñu doon jaamu leen dara wa ma zaaduhum dolliwuñ leen bémaado dim ci jaamu go xëy tatbiitin lu mooy perteloo mooy taxsiirin perteloo de bal yàlla yéen leen yokku perte ndax ba rek lañ leen yokku wa kazalika naka boobule arak misla zalika axdi ni ki boobule arak axdu rabbika mooy arak ak sa borom isa axasa nem bëgg na arak alqura dëkk urida bëgg nañ alqura ñooñ dëkk lañ ci namu uma tam urida bëgg nañ ahluha ñooñ dëkk bi de waye te fekk ñooñ dëkk ma zalimatu aji tooñ la mu bi zone bi ci bàkkaar fala yox ni du jëriñ xanum ci waa dëkk boobu wala boog ci waa dëkk boobu min aq di ci alkaan yàlla cheyun dara inna aqdahu naka alkaan ak yàlla ali mun aji tat la mu aji métital la mu shadidun aji tat la de ni yàlla xalagee dëkk yi wees woon nii noonu lay xalagee dëkk bu mu bëgg xalag su fekkee dañoo tooñ waa dëkk bépp ñooñ dëkk boo gis bu ñuy def di tooñ mbugalam yàlla dana wàcc seen kaw de dégg nga te bu mbugalam yàlla bëggee wàcc seen kaw dara mënul leen a défendre ba mbugal moomu du wàcc mbugalam yàlla nag yàlla nee na lu mën a métital doomu aadama la waaye lu tat la kenn xattunut ko rawaa nett na cheikhaani ñaari sëriñ muy buxaari muslim an abi musa al ashari yi jëlee ci abu musa al qaala mu ne qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa nañ na laa naka yàlla la yum lii dana mu yéexee li zaalimi ñeel tooñkat xataa isa axasoo ndax bu ko jëlee lam yuftidu du ko rëcc nit dana tooñ yàlla xam na ne mu ngi tooñ mu ba ko rek mel ni ku du ko mbugal mel ni ku ko fàtt waaje féttarlu ci tooñi rek bu demee ba bakkaar yi bëri jéggi ko jéggi doyo yàlla daal di wàccee mbugalam nga xam ne nit kooku du mën a am fu mu jaar mukk ba rëcc ndax bakkaar yu bari de bu fekkee doomu aadama bi lim def bareegut ci tooñ bàkkaar yi mbugal ma ñëw mu daal di tuub kooku mën naa rëcc waaye yàlla bu bañee nit daf koy xiir ci tooñ bu ko muy tooñ yàlla seetaan ko nag mu ne ah nit ñi wax rek waaye moom la muy dara nekkut ci ndax rey na ay nit te dara dalul ko de jël naa li jàmbur yi te dara dalul ko muy trian di def lu ko neex te kenn mënu lu ko dara teele dundam gën a neex mu continuer ci loolu bakkaar di gën a bëri rek bis bu demee nag ba nga xam ne amatul fu mu mën a jaar ba mucc ndax bakkaar yi gën a doyoo mbugalam yàlla ñëw de yàlla du seetaan mukk tooñ ak lum ndaw ndaw wala lum rëy rëy waaye mën naa yéexe nag dafay yéexe waaye du seetaan wolof danay juum ne yàlla dàq seetaan yàlla du seetaan mukk dafay yéexe rek waaye lépp dana ko fay maanute yàlla ëpp na nit di tooñ mu di ko bañ a fay de dërëm boo lekkal doomu aadama sax bis dana jot nga fay nga fay ko ko kàddu gu ñaaw goo wax ci daram bis dana ñëw yàlla fay ko fay ko de dégg nga lor woo ko lor ci yaramam wala ci alalam wala ci njabootam bis dana ñëw dégg nga yàlla fayakul ko dara du neen lépp loo def rek sa bopp nga ko def ndax képp koo tooñ kum mën a doon yàlla dana ko fayakul de waxuma sax doomu aadama waaye rab yi sax booleen leen yàlla dana leen fayakul yàlla jugul dugal na jigéen safara yonent nee na dara taxul mu dugal ko fa ndax muus moom jël tëj ko joxut ko mu lekk joxut ko mu naan bàyyiwut ko mu wëri lekk ak naan de tooñ gim tooñ muus moomu ci la ko yàlla dugalee safara ngir fayakul muus moomu kon tooñu ngoowu lu raglu la lu jara moytu la aji tooñ nag bis boo ko bis bu bis bu bis bu tooñee nit bam ñaanal ko yàlla foo mu dal soo tooñee doomu aadama jël nga sa bopp jébbal ko ko de ndax bis bu la ñaanalee yàlla lu bon ñaan nga foo mu dal ndax ñaanal kuñ tooñ yàlla du ko delloo moo tax nit mën naa def lu nekk ba des tooñ de kee boo moytu ko jigut kenn yowmal qiyaamati ñaari kuy yu mbëkkante woon benn bi am béjjën benn bi amut béjjën yàlla dana saxal borom béj bi amutoon béjjën dana ko saxalal béjjën ne ko fayakul ci àdduna def laa mbëkkoon ndax am na béjjën te yow amoo ko kon nag dana la saxalal béjjën nga fayeku bu ko defee ñu doon leen def suuf de xam nga bàyyi may rab yi kenn du leen àtte ñoom suuf la ñuy mujj waaye lañ toñentoon seen biir yàlla dana ko fayeku ba pare doon leen def suuf rawatina doomu kon ngay buur ngay borom doole ngay borom sañ-sañ ko mën a doon toon ji toon jiwut la su ma mu jàng rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa kazaalika ne ko noonu la axdu rabbika mbugalam sax borom isa axasa ne mbugal na alqura dëkk ya ñooñ dëkk wayu te fekk ñoom zalimatun way tooñ lañu ci bakkaar inna axadahu nako mbugalam yàlla alimun aji métta yaram la shadidun aji tat la de ba yonentu waxee ne yàlla bàyyi tooñkat muy tooñ rek bis bu ko jàppee du mën a rëcc dafa jàng laaya ji ne noonu la yàlla di mbugalee nit su bëggee mbugal ñooñ dëkk daf leen bàyyi ñuy tooñ rek dëkk ba ña ngay jëflante ci riba yàlla waxul leen dara góor jigéen yaa ngi feeñ ci dëkk ba yàlla waxul leen dara de njaalo gaa ngi bëri ci dëkk ba yàlla waxul dara mel ni ku yëgut jaayante doole ngi bëri ci dëkk ba yàlla waxul leen dara diine yu bon yaa ngi fees ci dëkk ba yàlla waxul leen dara bu demee ba dëkk ba yàqu nag ba amatuñ benn lay mbugalum yàlla ñëw de te bu ñëwee kenn mënu ci dara te bu ñëwee dana njëg ne lu metti la lu tat la rek laa wax de kon kee boo jub bañ tooñ bul tooñ sa borom bul tooñ sa morom de xaaw laay gaa ñi ittaboo topp nañ firawna firawna faxaraqoo ñu dal di lab fil ci géej ga waratoo ñu daal di dugg annaara safara ma firawna ànd ak firawna kon topp mën naa alage yàlla tudd na ci alquran juróom-ñaari nit yoo xam ne topp nañ juróom-ñaari mbir ñoom ñëpp ñaal ko ba des kenn ka de zakara tudd na alquran alquran samaata anfaarin juróom-ñaari nit ittabon topp nañ samaata asiya juróom-ñaari mbir wa kullum te kenn ci ñoom wajada fekk na wala xam na natijate ittibaa yi toppam juróom-ñaar ñii kenn ku nekk rek résultat wala nga topp yàlla jox na la yëpp benn baaxu ci mooy topp ku baax de xaabil xaabil ittaba topp na nafsoo bakkanam mooy yëg boppam rëy lool jàpp ne moom daal moom lu baax lu ne moo ko yelloo fa tawaa taaral na loo ñeel ko nafsoo bakkanam xat la axii rey mbokkam fa qataloo mu rey ko faas baa mu mujj mel xaasireen di bokk ci way perteere xaabil bakkanam daf ko xoo ci rey mbokkam ma di xaabil ndax lan ndax soxna si si xaabil war a takk daal nee na moom moo ko war a takk ndax moom mooy moom daal moom moo xelloo ñu rafet ñi bu ko defee nag ci loolu la rayee mbokkam ma yàlla pertal ko de beneen laaya mu ne faas ba mu mujj mi ne naa di mel di bokk ci way rëccu yi kon ku yëg sa bakkan ba topp ko ci perte ngay mujj ak ak rëccu de fexeel ba wul topp sa bakkan topp sa bakkan nag mooy nga yëg sa daraja yëg sa kilifteef ba lu nekk nga ne yow yow lañ ko war a jox di la du dëgg yow daal yaa yaa xelloo yu baax yëpp di la doo ko xam ci dëgg de te naf ci topp bakkan laa yuj naa duñ wittee mi naa ci moom illal xusaanu lu mooy perte wan na daamutu ak de képp ku topp bakkanam perte la cee jëlee ak benn ngoogu benn toppee ngoogu amul njëriñ mooy topp bakkan mooy yëg sa bopp wa wasafa melal na waaye dan kenn min ulamaay bani israila ci borom xam-xam yi banu israila mooy balaam ibnu baamura ku ku xéeme la woon ku kawe waaye yàlla xalak na ko de ndax topp bànneexu bakkanam borom xam-xam la waaye xamul woon lu koy lu may li ko neex looloo yàlla xalak ko de axlada benn ilal ardi jëm ci bànneexi bakkan wattabaamu topp hawaawu ba neexam de balaam dafa jeng jëm ci suuf manam topp mbiri àdduna lum lekk lum naan warwaay wu rafet ay jongoma caaxaan yooyu daal moo ko yittiloon fasala ba mu rékki maa mëna wala may na ko allah wella tabaraka bërñëw wa taala kawe na fasaala mu mujj kaafiran di hee verde su ko defee la ko yàlla mayoon ci xam-xam ak njub yëpp yàlla génne ko ci xol ba génnee leer ga mu mujj bokk ci yéeféer yi wasaara mujj na masaroo misaaram kamasalil kal bi comme misaaram xaj in taxmil ndem xen nga ale ci moom yelxas ma nga yelkat de aw tatruku wala nga ba ko mu muy yelkat xaj daal boo ko dàqee ma ngay tàllal lamañ ba di yelkat soo ko bàyyee benn ma ngay tàllal lamañ ba di yelkat balaam ibnu baawara it noonu la yàlla jëflanteeg moom mooy da ko mujj rek xalak boo ko teralee teewut ma nga bëgg àddina boo ko teralu it ma nga bëgg àddina topp ci rek laa wax de laa yow may su xàmmewut beneen karaamat diggante teraanga war ihanati ak doyadal ñaareel foofu fekk ku topp bànneexi bakkanam dafay ñàkk kersa day dem ba ñàkk ñàkk kersa dootu xamante nga toroxal ko ak nga tagg ko mooy am ci moom moom bëgg-bëggam rek la xam bu bëggee ci yow dara daal dana la topp dana def lu nekk pour am ko moo xam def ci jëlee toroxtaane wala def ci jëlee teraanga du tee moom dana ñëwaat rek laa wax de topp bànneexi bakkan noonu la ku topp bànneexi bakkanam nag mooy koo xam ni lu mu bëgg xamatul ci sago nu mën a def ba am ko rek baax na kooku fa muy mujj rek mooy xal ku de yàlla roccil ku gëm yàlla mu mujj dugg ci kéeféer yi waaw du xàmmee ci lu baax ak lu bon moom lu mu bëgg rek la xam wa zakara tudd na xawma nit ñoo xam ne itam moo topp nañ ashawaat yi yu neex yi topp sa bànneex bakkan wute naag topp lu neex ndax nit ku topp bànneexi bakkanam mën naa def sax loo xam ni neexu ko wala neexut ku topp bànneexi bakkanam mën naa fekk ab tere mu jël ko rek doo ci suuf ndax réew rek moom looloo ko neex yàq dégg nga mën naa fekk xalalu jàmbur mu jël yàq kooku ñaareel kéeféer ci la jëm ku topp bànneexi bakkan nag mooy koo xam ne moom lu lu lu neex rek lay la xam de nga foo fekk mu ngi ci caaxaan ya mu ca musique ba waaw mu ca place yi ñuy caaxaanee ma ngi sol lu gàtt dégg nga di wut bànneex ca góor ña wala ca jigéen ña yooyu daal looloo ko neex moom kooku lam topp mooy bànneexam de moom la yàlla wax ne moom la wax ne wa zakaratu na xaw ma nit ñi nga xam ne itam moo topp na shawaati bànneexee Eh, moom la yàlla wane fa xalafa wutu na min baax dem gannaaw nit ñu baax ña xalfun kuutal gu kuutal gu bon adaawo sànq nañu salaatu julli wata moo topp ne shawaati seen bànneexi bakkane mooy bànneexam nelaw bànneexam lekk ak naan bànneexam seeg foo yooyu daal lañ toppoon de fa sawfa yalqawna si nañoo daje ak pour sa jahannama de yàlla ne na ñooñu daa leen dugal xur wa nekk ca jahannama daal di leen mbugal kon ku topp sa bànneexi bakkan jahannama mooy su dëkk waay wa xawma nit ñi nga xam ne itam topp nañ boo saa dalaalati njiit yu réer am na ci nit yoo xam ne dañuy topp njiit yu réer maanaam kilifa yoo xam ne dañoo réer jubuñ nga topp leen rek dégg nga kooku atteem mooy ista ñoom la yàlla wan istabara ba mu dancuroo alladina ñi nga xam ne itabon topp topp nañ leen min alladina si ñi nga xam ne itabon topp nañ de waraaw ñu gis alaazaba mbugalam yàlla ñooñu maalum seen mujj ilal xasraati mooy perte yomal xiyaamati gërëm bis bañ ci dee fa ñuy mujj yomal xiyaamati mooy perte kilifa yi daal di dañ ci ña ña toppe woon ne leen dara mbugalam yàlla ñëw na ñoom ñu rëccu de wa xawmu firawna ak niti firawna ya ñoom yàlla tudd na leen ittamoo topp nañ amra firawna mbiram firawna te dugg na ci bépp buur bu beew rek bu réer ku ko topp rek yaa ngi bokk ci ñooñu maa amru firawna den mbiru firawna bi rachidin daa ji jub de yaqdumu dana xommat xaw moo nitam yowmal qiyaamati ko rek bis penc fawradu mu dugal leen annaara safara kon topp firawna ak topp buur bu bon foofu lay mu jël borom de mooy dugal ko safara de wa iblis iblis ittabon topp na ko xawmun aw nit ñoom la yàlla wax ne inna bàyyi na ko sama jaam ya lay sa la ñeel alim seen kaw sultaanun benn kattan illaa man ittabaaka lu mooy ñu la topp mel xaayu na ci way réeré de way la mooy doomu moo di Sénégal ndewu aj may na mi ñu mboole de ñoom ñëpp jahannama la ñuy dëkki kon topp iblis jahannama lay mujjël boromam taatu iblis yi topp iblis haasa li maaluha mu moo di mujjëm de juróom ñaar juróom benn topp yi yëpp benn baaxut topp sa bakkan rëccu ak ak perte nga cee jëlee moo yëg sa bopp ak sa daraja foog na yaa kawee ñëpp topp sa bànneexi bakkan lu la neex rek ngay def kooku kéeféer lay mujjël nit ak toroxal ko ba du xàmmeeti teraanga ak toroxtaane topp bànneex yi kooku dafay dugal nit xayu de mooy xur wa nekk ci jahannama topp njiit yu réer yi moo xam ku mën a doon dem njiit mu réer la rek topp ko fam lay jëmee mooy perte ak rëccu yomal xiyaamati de mujj dañ ci yow nga dañ ci moom ne su ma yëgoon duma ko topp mukk dégg nga xaw ma lu tax ma ko doon topp ci àdduna ak fi ma mujjee kii kay du dara banaa ko rek laa wax de juróomeel topp mooy topp firawna dugg na ci mboolem jiit mu bon nguur gu bon buur bu bon topp ko daf lay dugal xommat rek ba dugal la safara juróom benneel ba mooy topp iblis kooku jahannama la mujjee lay mujjee boromam de juróom ñaareelu topp ga nag mooy topp gu baax mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wa qawmun ak nit woo xam ne ittabon topp nañ rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doole alayhi salaam wa sallam doole ko musal ñoom la yàlla wax ne qul waxal in kuntum nam nekk ngeen tuhibbuuna di bëgg allah yàlla fattabi'uuni topp leen ma yuhbibkum dara mu bëgg leen allah yàlla su yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen de kon ndeke topp yonent bi bëgg yàlla lañ cee jëlee moo tax ne am rasuli waaye topp yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla wax euh, fayuj naa danañ wittee bi sababi ma sababam mahabbatullahi bëgg ak yàlla de boo toppee yonent rek am ci yàlla bëgg la yaqul dana wax rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadis qudsi qudsi yàllaa ngi wax naan ci hadis ba ne yaa ibaadi yéen samay jaam inni nak man xaramtu xaramal naa azulma tooñ ala nafsi sama bopp wajaxal tu def naa ko muharraman muy xaramal baynakum seen diggante fala moom bu leen tooñante de yàlla nee na yéen samay jaam dama xaraamal tooñ ci sama bopp maanaam yàlla def ne moom du tooñ yàlla sax moom mënul tooñ ndax tooñ mooy nga soppandiku ci àll li jàmbur te lépp yàllaa ko moom waaye li mu bëgg wax mooy moom du mbugal kenn te defut bakkaar ku def bakkaar daal yàlla mbugal la waaye yàlla du mbugal kenn te defut bakkaar nga déggee ci nekkoon lépp lu la dal ci naqar rek yaa ko teg sa bopp dégg wu la jëm sax yàlla du xebal dégg bi mu jëm la te defoo dara danga def dara dégg ba jëm la puso bu la lor yaa def bakkaar de ñàkk bu la dal yaa def bakkaar bu la naqaree dégg nga waaw bépp métti bu la dal rek ci sa bakkaar la ndax yàlla du tooñ de yàlla nag na xaraamal naa tooñ seen diggante yéen it ngeen bu leen tooñante yaa ibaadi yéen samay jaam kullukum yéen ñëpp daalum da ngeen réer illaa man hadaytoo lu may ki xam ne maa ko jubal kon fastahduni sàkku leen ma jubal leen hadikum ma jubal leen yàlla ne bu kenn foog ne dafa jub yéen ñépp réer ñu ne ko ku jub mu ne ki ma jubal rek ko jub kon nga déggee ne jub du xam-xam bu bari moo koy maye de njub du ànd ak ku jub moo koy maye njub du dégg nga njàng mu bëri moo koy maye du xalal ju bëri moo koy maye du daraja moo koy maye du doomi nekk doomi ku jub moo moo koy maye njub jub daal yàlla koy maye rek laa wax de loola waral loo gis koo gis rek dégg nga yaakaaree ko njub réer na Moussa Samiri yow Jibril la ko yar taxaw naa ku jub waaye dafa xal ku Kanaan doomi yonent yàlla noonu la bokk ci ulul azmi kooku taqoo doomi ku jub la waaye dafa alku xaaruna alal ju bëri la yorewoon dégg am daraja bu bëggee naan ñëpp di ko ñëwee waaye dafa alku iblis jaamu na yàlla lu dul jeex waaye taxul mu am jub dafa alku rek laa wax de dégg balaam ibnu baawra borom xam-xam bu mag la woon waaye dafa alku taxul mu jub rek laa wax de yàlla rek kay jublee yàlla ñu yàlla jubal nee na su ngeen bëggee jub nag ñaan leen moom ma jub rek ma jubal leen de yaa ibaadi yéen samay jaam kullukum yéen ñëpp jaayow na way xiif ngeen illaa man atamtoolu mooy ka ma lehal fastatimuuni sàkku leen ma lehal leen utim ku ma lehal leen yàlla ne wërsëg rek koy joxe yéen ñàkk kenn dara yéen ñëpp xiif ki ma lehal daal moo am su ngeen bëggee nag ma lehal leen ñaan leen ma ko rek laa wax de kon li nga lekk ba suur kooku wërsëg bi yàlla la mu la jox waaye du sa góor góorgóorlu de dégg nga yaa ibaadi yéen samay jaam kullukum yéen ñëpp aarin way raf la ngeen xamu leen sax yére yu ngeen sol illaa man kasawtu lu may ko ma xoddu leen ak sukkum danaa leen xoddu de yéen samay jaam yéen ñëpp da ngeen raf leen xamu lu ngeen sol képp ko am lu sol rek maa ko xoddu su ngeen bëggee nag ma xoddu leen ñaan leen ma ko rek laa wax de yaa ibaadi yéen samay jaam innakum nag yéen tuxtiwuna da ngeen mooy billeeri ci guddi war nahaari ak bëccëg waanaa man axfiru ma jéggal ak zunuba ma jéggal leen axfir lakum dana ma jéggal leen yàlla ne yéen samay jaam yéen ñëpp yéenay mooy yàlla da ngeen may mooy guddi di ma mooy bëccëg man nag maay jéggale mboole mi bàkkaar su ngeen bëggee nag ma jéggal leen nag ñaan leen moom ma jéggal leen yaa ibaadi hadis bi daal yàlla nga ci xam ne ne kenn amul dara bu kenn bàkkoo dara ku am dara rek yàlla la ko may mu ngi ci xam lay ne ku bëgg ñaanal yàlla rek de te sabablu boo ñaanal yàlla te sabablu yàlla mën na la ko may hadis baa ngi xam ne ne bu kenn dem ba yaakaar ne mucc na ci bakkaar yàlla ne yéen ñëppay juum ngeen xam ko ñàkk koo xam moo ci yem waaye yéen a ngi jum de yéen ngi jum guddi di jum bëccëg waaye nag man fakkaar yépp laay bare lu jum gi bëri bëri su ngeen ma baaloo ma baal leen de yaa baal di yéen samay jaam innakum nak yéen tabluxu du ngeen jot duri sama lor fa taduruni kon ngeen lor ma walan tabluxu du ngeen jot naf yi sama njariñ fa tan foo nii kon ngeen njariñ ma de yéen samay jaam mun leen maa lor su ngeen ma lor da ngeen ma lor mun leen ma jariñ su leen ma mënoon a jëriñ da ngeen ma jëriñ ana looy déggee ci hadis bi de da nga ci déggee ne kenn mënul mucc ci loru doomu aadama yi ndax yàlla mu baax mi de yàlla mu kawe mi mu foor mi am na ñoo xam ne buñ ko mënoon lor danañ ko lor rawatina yow mi nga xam ne nii ku suufi nga ku manqué nga ku kuy jum kon faw ñu lor la rek laa na ñoo xam ne buñ mënoon lor yàlla lor ko waaye am na ñoo xam ne buñ mënoon a jëriñ yàlla jariñ ko yaa ibaadi yéen samay jaam law an awalakum bu fekkoon ne way njëkk ci yéen wa axirakum ak way mujj ci yéen wa insakum ak seeni nit wa jinnakum ak seeni jinne kaanu nekk nañu ala atqa qalbi rajulin ci xolu euh, ala atqa xolu benn góor bi gën a ragal yàlla minkum ci yéen maa zaada yokkut zaaliku loolu fi mulki sama nguur ci dara yàlla ne yéen samay jaam bu ngeen mukk ne jaamu yàlla yi ngeen def daf may yokk dara yokkul ma dara ndax man dara mënul maa jëriñ de dégg nga kon jaamu yàlla yi ñun rek lay jëriñ bu fekkoon ne ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi nit yi ak jinne yëpp dañoo mel ni ki gën a ragal yàlla ci mbindeef bi te mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla nee na loolu yokkul sama nguur dara <coughs> yokkul ci man dara de yaa ibaadi yéen samay jaam law anna awwalakum bu fekkoon ne way njëkk ci yéen wa aaxirakum ak way mujj ci yéen wayen sakum ak seen i nit wa jinnakum ak seen i jinne kaanoo nekk nañ laa afjara qalbi rajulin waahidin ci xolu góor gi gën a kàccoor ci yéen maa naqasa wàññiwut daal ku ko min sama nguur seen dara de na njëkk mujj ñi nit buñ meloon ni ki kàccoor ci mbindeef yàlla yi loolu mun wàññi ci sama nguur dara ndax man dara mënu maa lor kon jaamu yàlla yi yéen lay jëriñ moo yàlla yi yéen ak lay lor yaa ibaadi yéen samay jaam law anna awwalakum bu fekkoon ñu njëkk ci yéen wa aaxirakum ak ñu mujj ci yéen <coughs> wa insakum ak seeni nit wa jinnakum ak seeni jinne xaamoo taxaw nañ fii saidin waahidin ci benn pak fasaalu nañu ñaan ma fa ataytu ma jox kulla insaanin doomu aadama bu nekk masalatu la muy ñaan maa naqasa wàññiwul daaliku loolu mi maa indi ci la nekk fa man illaa kama yanqusu comme lu muy wàññi almaxiitu pusa isa udxila buñ ko dugalee albaxra géej yàlla ne yéen ñëpp su ngeen daje woon ñu njëkk ñeen ñu mujj ñi nit ñi ak jinne yi taxaw ci benn barab ñaan ma kenn ku nekk la nga ñaan lépp ma jox la ko ba mu jeex takk loolu du wàññi ci li ma yor dara lu mooy euh, puso dugal ci géej li muy wàññi ci géej waxul sax puso génne xam nga puse boo ko dugalee ci géej génne ko mën naa mu taq ay pepp tuuti ndox waaye xam nga ne muy taq wàññi ci géej gi dara waaye mën naa takk dara amaa puso boo ko dugalee ci géej bokk fa kooku moom wàññiwut dara yaa ngi dégg bal bu yokkul ci géej gi wàññiwut fa dara yàlla ne yéen ñëpp bu ngeen taxawoon ci benn barab ñaan ma kenn ku nekk nag ma ñaan ma may la ko du wàññi ci man dara lu may puso bu dugal ci géej la muy wàññi ci géej gi yàlla mayam dafay mel ni rek kuy envoyé ci portable la nekk sa portable ci son man nga ko envoyé beneen portable te wàññiwut ci yow dara jox nga ko. waaye wàññiwut ci yow dara la yàlla lu mu a may du wàññi ci moom dara lii danga ci déggee wakkilu ci yàlla ak yaakaar ko ak yaatal dënn yi de yéene wante lu baax ndax kenn ku nekk yàlla mën na laa jox li nga soxla lépp te du xañ sa morom dara teewul sa morom lépp lu mu soxla moom yàlla jox ko ko de kon du ko defee na dënn yaatu yaatu rek <laughs> te ñaan yàlla de te góorgóorlu kenn mu jël wërsëg ab jàmbur yaa ibaadi yéen samay jaamu innamaa yéen ak lii amaalukum mooy seen jëf wax si ha dana ko takk lakum ñee leen su ma wafikum ma matala leen iyaaha jëf ji seen jëf yaa ngi nii konti naa ko ba mu mat dinaa leen ko fayit ba mu mat fa man wajada ko fekk xayran hiw fa di ahmadillah na sant yàlla de ko fekk xayra zaalika lu dul hiw falaa yaluumanna yaa ngi nii naa ko bam mu mat danaa leen ko fay ba mu mat ku xam jëf ju baax ku fekk yomal xiyaamati yiw tiyaaba santal yàlla yàlla la dimbale waaye du sa bàkku du sa góor de ku baax ku ne bu mu bàkku yàlla na yàlla ko jubal bu yàlla jubul toon du jub yomal xiyaamati ku ñëw fekk fa lu baax bu mu yedd boppam ndax gis gim gis boppam yëg gim yëg boppam loolu moo ko yóbbee ci muy def lu bon li muy def lépp ba mu jaxal ko de waaye bu évancé woon boppam daal di saxal yàlla rek su ba yàlla mim saxal kooku rek lay topp lu yàlla bëgg mu def lu bañ mu bàyyi waaye nag cosaani bakkaar yëpp mooy yëg sa bopp boo yëgee ne yaa rek mën ngaa wutal sa bopp dara mën ngaa defit ngir sa bopp dégg nga mën ngaa yëkkati sa bopp mën ngaa def bakkaar bu ne moo tax cosaani bakkaar yëpp mooy xam waaye boo ñàkkee ba saxaltoo sa bopp dara yëgatoo sa bopp dara naka ngay gistëree naka ngay rëyee naka ngay mooyee mooyee yàlla doo def loolu lépp de su boobaa yàlla mi mi xam rek ngay topp dégg nga moo tax yàlla ne ku fekk lu dëgg daal bu mu yedd lu may boppam ndax moo yëg boppam beneen laay yi loolu la wax ma asaabaka min xasanatin fa min allaahi wa ma asaabaka min sayyiatin fa min nafsika lu baax loo mën a xam rek xamal ne ci yàlla la jógee lap ci yàlla jeex ci yàlla mooy waral baax mooy waral njub mooy waral wërsëg de waaye lu bon lu la mën dal mbugal mu mën a doon mu bu mën a doon mu ngi jugee ci yëg gi nga yëg sa bopp wa kazalika nag noonu axsu rabbika mbugalam sa borom isa axasab ne mbugal na alqura ñooñ dëkk waaye ñoom zaalimatun aji tooñ lañ inna axasoo naka mbugalam yàlla alimun aji tat la mu shadidun aji aji yaram la tat la inna laa naka yàlla tabaraka bani wa taala kawena la yum lii dana yéexee li zaalimi ñeen aji tooñ yum lii mooy yum hilu dana ko yéexee wala yum hilu waaye du ko neenal de du bàyyi mukk bakkaar bi mu wëy yum li mën naa yéexee rubbamaa yum hilu amaana mu yéexe azaalimu aji tooñ du tax yàlla yàkkamtuut liannoo ndax moom laa yefuutu du ko faat seewun dara wala yoon ji soo du ko lottaloo seewun dara indama yaqusuhu jamono ba dana jàpp tooñkat ba lam yuflituhu du ko mën a rëcc ndax yu bëri de yàlla dafa bokk ci ay turam alxalimu alxalimu mooy lan mooy aji lewet lewetam googu moo tax nit mën a tooñ lu nekk rek mu mënoon ko mbugal si sensé mu mu xaar yàkkamtu dara xam nga ku lewetut boo koy tooñ léegi mu réagir léegi te mu fayu walla mu seet nu def waaye yàlla nag ku lewet la de moo tax mën nga ko tooñ lu nekk muy xaar rek de ba waxtu wa mu daal di la mbugal ndax moom dara du ko raw te dara du ko lottuloo walakin waaye nag bàyyi ne laa yuhmilu yàlla du neenal de nee na du bàyyi benn tooñ muy niil li olof di wax yàllaa fi dàq seetaan mën ngaa def musiba bu nekk rek mu bala noonu déedéet mukk la àdduna yàlla daf laa yàkkamtuwut moom yàkkamtuwut dara ndax moom dara du ko raw lépp mu ngi teew fa kanamam loola waral mën na laa yéexe waaye du la du mukk de xadloo mandug yàlla tabaraka bani wa taala kaw na yi abaa day bañ zaliku loolu bàyyi ne mandug yàlla dafay bañ nit tooñ yàlla neenal tooñ bu noonu bàyyi noonu rek mu jàll du ko def bañ na ko sax ba diggante mbindee fi tooñ ña fa am yoonu yàlla nekkut ci fekk mbindee fi baalu la yàlla moom du la baal nga kon tooñ yàlla du ko ba noonu rek de inna fi zalika naka nekk na ci loolu ñu tudd almaskur lañ tudd mi nga xisasi ci nettali la aayatan ab xalam laa ibratan ak xalam li man xaafa ñeel ko ragal na azabal axirati mbugalam alaxira ku ragal mbugalam daal dana xalaat ci lii de xam ne ku tooñ yàlla rek boo dajeeg yàlla yàlla xalag la zalika bis boobu mooy yomal qiyaamati yamun bis la boo xam ne maj moon buñ dajale loo ñeel ko annaasu nit ñi rek laa wax de dégg nga boo xam ne maj moon dana dajale fii moom annaasu nit ñi jëmeen mboolem wa zalika loolu yamun bis la mashhudun ba da bañ teewee yashhadu dana ko teewee jamiul xalaayiqi mboolem mbindeefi bi yomal qiyaamati bu ñëwee yàlla dana dajale ñëpp te nee na kenn du rëcc ñëpp ay teew su ko defee nag mu xatti leen de wa maa nu axiruhu yéex wuñ bis boobu illaa li ajalin lu may ngir diir mahdudin buñ xam li waxtu dafa jëm ci waxtu maalumu buñ xam inda laahi fa yàlla tabaraka bani wa taala kawe laa inda xëyri nekkul fa keneen ku dul yàlla yowmal qiyaamati yàlla daf koo yéexee ba waxtu wuñ xam waxtu woo xam ne yàlla xam na ko moom rek moo xam na kañ la yowmal qiyaamati di taxaw bés bu waree ñu taxaw rek dana taxaw de waaye keneen ku dul yàlla moom xamut si yowmal qiyaamati dara yow ma yaati bis ba dana dikk daalika yowma boobale bis laa takallamu du wax nafsun bakkan du wax nafsun benn bakkan illaa bi izni lu mooy ci ndigal yàlla de tabaaraka ba nuyu wa taala kawe na كين هم فسنج سنج هم فبات كين هم الله في وق كويا الذي قال موه دال موه كويا الذي يقول نك تك نعرف فمنهم أنس نعم الخلق من دفي شقي نجي تكادي ومنهم أنس نعم سعيد نجي تكادي وا ويوم القيامة نجيبك من دفي نعرف قاد نجدون هم نجوا قمنا نجوا تكادي سفر لن جم يا نجى الله مسل هم نجوا قمنا نجوا تكادي هل جنا لن جم يا نجى الله بوله كتب بالنج كل لب في الأزل تشوي balaa yàlla di bind dara ci la dogal ñi war a dugg aljana ak ñi war a dugg sawara de ñoom ñëpp yàlla bind na leen balaa muy bind doomu aadama yi allahu yàlla tabaraka ba nii wa taala kawe na pare na min arbaatin ci ñeent ñeent yi yàlla pare na ci jeex na min risqil insaani ci wërsëg doomu aadama doomu adama la war a am ci wërsëg yàlla pare ci ak lu mën a xewloo rek lay am waa jëli ak diiram doomu aadama at yi mu war a dund yàlla pare na ci lu mën a xew at yooyu rek lay dund du yokk du wàññeeku wa shaqiyun ndax ku texe xaji la doomu aadama bi nar a dugg safara yàlla pare na ci lu mën a xew safara lay jëm moom na laaja di wax muy wax ju daw yaram nag inna alladina haqqat alayhim kalimatu rabbika laa yàlla nee na ñi nga xam ne dogal naa ne safara lañ jëm duñ mën a gëm ba mukk lu mbir mi leer leer duñ gëm wala buñ gëmee it danañ mujj weddi de dégg nga ku nar a jaar safara nag koo gi du jub mukk foo mu def bakkaar wala bu jubee it dana mujjee bakkaar dugg safara de aw saidun wala ku texela ñu war a dugg aljana yàlla dogal na ko ak lu mën a xew danañ gëm danañ jub buñ njëkkee xéeféer wala moo it gëm yàlla ak ak jub la ñuy mujjee de rufiat yëkkati nañu alaqalaamu bigee wa jëfat wow naa suufu téere ya mbir mi jeex na yàlla dogal na ko ba pare dara mëntu ko soppi loolu mooy big bi jub na téere bi wow na téere bi ñu tiim xam ngeen ne boo togoon ba suba it nga ubbi ko li fi nekk nii rek moo fi nekk waaw du yokk du wàññeeku benn xaraf du ci yokk benn xaraf du ci wàññeeku mbir yi tamit yàlla dogal na ko de jeex na du yokk du wàññeeku waamalu na ngeen jëf nag fakkulun kenn ku nekk mu yasurun dañ ko yombalal li maa xuliqa bind nañ ko la ñeel ko bu yàlla bindee ngir aljana jëfi waa yomb yàlla bindee ngir safara nag jëfi waa safara moo ko yomb de man xalaqoo ko bind na ko allah wala li saadati ngir texe yoo fiqu dana ko dëppale li amali ahli saadati si jëfi ñooñ texe xataa yaxtama ba mu mottali bi amali ahli saadati si jëfi ñooñ texe fa yasaadu mu daal di texe de ku yàlla bind ngir texe dafay jëf-jëfi ku texe ba jëf ji muy mujj def jëfi waal jana lay doon su ko defee mu daal di texe wa man katabaka bind na laa yàlla alay ci moom asaqaawata texaadi mooy dugg safara naxu su ñu ngi mosu billaay ci yàlla ci loolu yaxzulu dana ko gàccaal wayetur ko mu bàyyi ko yaamalu muy jëf amal ahli saqaawata jëfi ñooñ texaadi ku yàlla bëgg mu dugg safara yàlla daf koy seetaan muy def lu bon rek xataa yaxtima ba mu mottalee jëfam yi bi amali ahli saqaawat si jëfi waat ñooñ texaadi eh, fees xaamu daal di texaadi de bale muy mujjee def jëf ju bon lay doon yàlla dugal ko safara moo tax mujj gi moo ëpp solo nit mën naa njëkkee baax waaye la mujjee rek moo koy dugal aljana wala sawara de nit mën naa njëkkee bon waaye la mujjee moo koy texaadil wala mu mujje lu baax mu texal ko de mbir yi ma ci mujj ga yonentu ne nit dana jëf-jëfi waa aljana jëfi waa aljana ba mu ko waxee rek nga war a xam ne loolu jëf ju baax la ju yàlla nangu mu ne jëf ji dana dem ba jege ko aljana digganteem aljana xasabu la kon nekkul ne jëf ji dafa rafet ci zaahir fekk ci baatin baaxut ndax jëf ju baaxut ci baatin yàlla nanguwu ko lu yàlla nanguwut du la jege aljana ba mukk waaye ba yonentu waxee ne jëf ji jëfu waa aljana la teg si na jegeel na waa ji aljana ba digganteem aljana xasabu rek moo ci des loxo bi ba ci conc yi nga ne bu loolu toll moo des mu dee dugg aljana te bu dee woon dugg aljana yàlla ne yonent ne na mu def lu bon mujjee ko yàlla dugal ko safara koo xam nga ne njël beneen lépp lu baax la waaye mu jëm lu bon la looloo ko dugal safara yonent ne nit dana jëf jëfi waa safara ba digganteem ak safara xasabu moo ci des kon jëf ju bon la jëf ju bon jugóy jegal safara ba nga xam ni lu toll ni xasa bu moo def mu dee dugg safara yonent nee na waaye ndogalu yàlla jiitu ci moom mu def jëf ju baax ba mu defee jëf ju baax mujjee ko daal di dugg aljana kon mucc moo am solo loolu waral fekk xamoo sa mujj rek bul bàkku de bàkku teel na bëri na noonab yàlla bu nekk ci jaamab yàlla waaye bëri na soppeb yàlla bu nekk ci moo yàlla de bëri na kuy jaamu yàlla baax lool fekk ci noonu yàlla yi la bokk safara la jëm bëri na it kuy moo yàlla bon lool fekk ci soppe yàlla yi la bokk ndax mbaax lay mujj yàlla jëna la jëm yàlla rek xam ay noonam ak i soppeem rek laa wax de jaam yi ñeenti xaaj lañ comme niñ ko waxee woon jaam bu baax njël njël baax mu mujjee baax yàlla nañ ci yàlla boole ñooñu ñooñu aljana yi ak jaam boo xam ne njël beneen dafa bon waaye mu jëm baax kooku aljana la jëm ñaari kuréel yooyu aljana lañ jëm ñetteel bi mooy jaam boo xam ne njëlbéenam dafa bon mu jëm bon kooku safara la jëm de yàlla musal ak jaam boo xam ne njëlbéenam dafa baax waaye mu jëm bon kooku safara la jëm yàlla incha allah musal saadatul abdi ci xeb jaam bi fadlilaahi ci ngëneel yàlla rek la nekk wa rahmati ak yërmandeem jaam dugg aljana du jëfam moo ko mooy moo moo ko fay dugal de aljana du jëfa koy maye ne leen yàlla ngeen maan yàlla rek mooy dugal nit aljana de yonent ne lañ du xel du dugal ahadakum kenn seen aljana te aljana amalu jëfam amul kenn seen koo xam ne jëfam moo ko dugal aljana ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man sama jëf dugalul ma aljana xanaa yàlla muur maa ngi jéggalam ak yërmandeem de loolu rek ma dugal aljana wa saqaawatun abdi texaadik jaam bi bi xadd lii ci maandu yàlla de jaam bu texaadi nag ci maandu yàlla la texaadee waaye du tooñ li anna zulma ndax tooñ laay te ataa du jàpp ni mais laay ci yàlla tabaaraka ba ni wa taala kawe na azulmu tooñ atasarufu mooy nga soppandiku ci milki xëyri ci moomeelu keneen waaye sa moomeel moom la ci def kooku moom yoonu kenn nekku ci jaam bu dugg safara dafa fekk ne moom dégg nga yàlla daf ko bind ngir feeñal ci moom jalaalam màggaayam ak mbugalam moo waral cër boobu rek la ko yàlla cëralee dugal ko safara loolu mooy maanul teg yàlla mooy tur wa meloom wa feeñ na ca loolu nag gaa xam su ko defee nag jaam bi nga xam ne aljana la jëm moom kooku yërmande yàlla rek laay bu yàlla du fa dugg ndax yàlla dogal na mu dugg aljana balaa mu koy bind de fenn maa na duxul naka danañ nu duxul naka danañ dugal fenn maa na duxul naka danañ dugg aljana te aljana bi rahmatillahi ci yërmande yàlla tabaaraka ba ñu wa taala kawe na de wala taqaasumu di leen séddaloo darajaata daraja aljana bi amaal na kam suñ jëf ki la ëpp jëf rek moo la gën a kawe daraja waaye jëmmi aljana moom yéen maanaam yàlla moo ciy dugalee waaye jëf yi nag ni ñu ëppantee noonu la daraja yi gën a kawantee wala kon danañ nekk xaal dinañ di way beel fiyaa ci aljana abadan ba faw bi nu yaati naa kam suñ yéene yéene yi moo tax ñu sax aljana ndax jëf lum kawe kawe bu ko yàlla fayoon bu yàggee mu jeex jëf ju nekk bu dee junne at la it wala milliard at it jëf ji moom bu yàggee mu jeex ana kon lan moo tax ñu sax aljana dañ faa sax ndax dañoo yéene woon bu ñuy dund lu dund bi yàgg yàgg bu ñu dundoon ba faw it dañuy gëm yàlla lañ yéene woon gëm yàlla ba faw duñ mos a weddi looloo waral ñu sax aljana ba faw de duñ fa mos a génn wala xiyaa way taxaari yi yédu xoon danañ dugg annaara safara ba'dillahi ci mandug yàlla tabaraka wa taala kawe na ñi taxaari mandu yalla moy loolu moy sen place yalla jox len ko mo len dugal safara way taqaas moom danañ seddoo darakaat yaa digere safara ya bi amaalim kim seen jëf ya asiya yu bon ya denga waye mbugal mo nak metti waye ba mu ci kem jëf yu bon ya ki la gëna bon jëf rek mo la gën a métti mbugal wayaxul doon dinañ béel fiaa ci safara bin nu yaatim seen yéene li tax ñu sax safara nak moy yene ju bon di faxamal la seen daal ñi nga xam ne chaqu texe xaji nañ fi xan mii ci xam-xamu yàlla tabaraka ba nuyu wa taala kawena fa fi naari ñooñu safara lañ jëm lawum ñeel na leen fiaa safara zafirun xiiru mooy sawtun shadidun kaddu gu tat wa shahiqun ak ngaxel mooy kaddu mbaam awul wa njël benn la mooy dafay kawe foor lool waaye xiroo mu gën a shahiqun ngaxel la mooy dafay suufe dégg <clears throat> safara saa ngi léeg mu xiir bu baax léeg mu xiiru nank rek de wala boog ñoom ñooy xiiru ca biir safara sax ci ca léeg-léeg ñu xiiru bu baax léeg xiiru nank ndax mbugal mu métti ma de xaalis dina bi mu ñu mm, sax fiyaa ci safara ma daamati fekk sax na sama waat asamaan juróom-ñaar wala dak suuf juróom-ñaar dañuy sax safara fekk asamaan ak suuf a ngi sax asamaan ci nag dam ci nag mooy asamaani àddina ak suufi àddina ana lu tax yàlla wax loolu te asamaani àddina bis dana ñëw mu jeex de suuf si àddina dana jeex te mu ne waa safara dañuy sax safara fekk asamaan a ngi sax ak suuf loolu alquran dafa waxee ci waxinu yaaram yaaram buñ daan misaal lu sax dañ naan fekk asamaan a ngi fi ak suuf a ngi rek dégg nga mbir mi mbir maa loolu la yaaram doon wax buñ daan misaal lu du fi bu ñu buggee wax lii du fi jug ba mukk dañ naan dana fi des fekk asamaan a ngi des ak suuf moo tax yàlla waxee noonu de ne safara ñooñ mm, safara duñ fa génn dañ fay sax fekk asamaan ci ak suuf maanaam dañ fay sax ba faw lañ ci mu de léeg-léeg nga gis olof wax ko boo ma baaloo téeméer yoon du ma la baal fekk li bëgg wax li mu baal lim boo ma baaloo lu mu bëri bëri du ma la baal waaye nag mucc ne boo pee téeméer daray daray baal yàlla yi léeg-léeg moo waxee loolu bu ngeen bu ngeen jéggaloo juróom-ñaar fukki yoon yàlla du leen jéggal fekk lam ci na mooy bu ngeen jéggaloo lu mu bëri bëri yàlla du leen baal de fii it daf ne fekk asamaan a ngi sax ak suuf a ngi sax rek ñoom it ña nga sax safara lam ci na moom mooy dañuy sax safara ba foo rek laa waxlee mu dëdd waa waa di rek sax ak asamaan juróom-ñaar fi duniyaa ci àdduna fal muraat lañ nam mu samaawaat duniyaa mooy sawaane àdduna wala da waar ak suufi àdduna de xam ñu ne déedéet li bëgg wax mooy fekk asamaan àllaaxira ma nga sax ak suufi àllaaxira ma nga sax ñoom ñi ngay sax ci mbugalam yàlla te asamaan àllaaxira ak suufi àllaaxira du fa jug nee na loolu lañ ci nam waaye mën ngaa jàpp ne asamaan àdduna lañ si nam ak suuf àdduna de waaw waaye lañ nam ci wax ja mooy dañuy sax safara ba faw illaa macha lu mooy la soob na ko rabbu ko sa borom fan yi soob yàlla moom duñ ko dugg safara dégg fan yi soob yàlla mooy yan fan mooy fan yi nekkoon ci àdduna yooyu nekkuñu woon ci mbugalam yàlla de dégg nga wala nga ne fan yi soob yàlla mooy fan yi nga xam ne léeg-léegi ñu génne leen safara mosal leen tuuti ñu naan ak yooyu ñu dugalaat leen yooyu moom yàlla du leen ci mbugal wala nga ne fan yi soob yàlla mooy fan yi nga xam ne dem na ba azal nekk seet ak abat mbir yëpp delluwaat ci cosaan kooku foofu duñ fa yëg mbugalam yàlla de xayru macha lu mooy la soob na ko rabbu ko sa borom mu ne ziyaadati ci ndollal ala mudati ma seen ak dégg nga neexee yàlla nag ñu sax fa lu ëpp asamaani juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar lam sax kon loolu mooy danañ fa sax ba faw min maa ci nga xam ne daa muntaha di rek doytal waaye loxoo di ko ñeel loolu mën naa mooy ila maa shaa rabbuka bu la neexee nga ne danañ sax safara lu toll ni li asamaan nañ sax ci àddina ak lu suuf sax ci àddina ak la ci yàlla yokk la ci yàlla yokk mooy yàlla baleen ñu sax safara lu ëpp sax li asamaan sax ci suuf ak li àddina li asamaan sax ci àddina ak li suuf sax ci àddina yàlla mën na cee yokk de mën naa firi loolu mën naa firi danañ sax safara ba faw lu mooy fan yi nga xam ne moom lañ nekkoon ci àdduna yooyu moom nekk ñoon safara wala jamono yi ñu leen pour nandal leen yooyu nekk ñoon ci safara wala bu demee ba azal nekk seetu abad de kooki dootuñ yëkkati mbugalam safara de wal maanaa maanaa ba xaal dina mooy way bel lañu fi ci safara abadan ba faw hazali tafsiru jalaal mooy firim jalaal de inna rabbaka naka borom sa faalun aji defaa koon la لما يريد يلم بغري يالا لم بغري لا يرف ان يريد بالسلام والسلام توفيقي الا بالله عليه توكلت وليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته